naaje rek sama gars yi naaje rek <laughs> ndaw jëli xale yi ah <laughs> yow tam Alphie Cuisine bëgg di YouTube bëgg di liggéey bëgg lijjanti xale yi waaye lépp xaj na fi xam nga jigéen ñi ay jàmbaar benn recette pour gaaw Alphie na fi lépp nee naa la ci kaw ngay abonné wu bul fàtte fi rouge fi ñu bind s'abonné ak euh, pouce bu bleu bi du ci ñàkk donc ñu dem pour recette bu bees ay ci sama waaw waaw Euh, naaje du ñu tax a togg du ñu tere togg wala bëri liggéey ah déedéet cuisine rapide dafa am lii nii bokk na ci catégorie cuisine rapide mu nekk ay pâtes yoo ay pâtes au yu gaaw sax mais la mu saf ëpp na moo tax ma bëgg ñu jàll ci léegi donc gis ngeen euh, façon pâte bi nga xamante ni mooy ndroog euh, lëppaa lëpp papillon moom la jël benn paquet leneen li nga xamante ni moom lañ ciy dolli euh, bokk na ci huile d'olive benn soble bu ñu daggat ñaari laaj ñaari tomate yu ñu xolli purée de tomate am na ci marché bi paprika herbe de province euh, thon euh, ak fromage parmesan mooy fromage bu sax bi tuuti crème fraîche suukar defe naa lool la ñuy soxla pour mën a réaliser recette bi bu ngeen ko suivre di ngeen xam ne bokk na ci catégorie recette rapide li ñuy def rapidement mooy dañuy def suñu dëwlin toujours soxlawul bool euh, bi di tàng sama gars yi léegi moom min nañ ko ndax euh, femme chic yi moom toggatuñu benn di tàngal ay dëwlin wala di sansal ay dëwlin bu ko defee ñu def ci soble bi ak laaj bi daal di bàyyi mu dee tuuti environ 3 minutes dina baax ngay yëngal nag euh, pour bañ mu mu am coloration bi nga xamante ni guuwu laaj bi su xamee rek dafay feeñ ci sos bi donc moo tax ñuy yëngal bu ko defee nag moment bi ñu daal di ciy def tomate bi tomate bi ñu xolli nag li ñu def mooy euh, bi ñu baxalee ndox bi avant ñu ciy def pat bi lañ ci sànni ñaari tomate yi donc boo ko ci defee 5 secondes nga génne ko daf lay permettre nga xolli ko euh, xollit bi daal di dañ facilement loolu tamit euh, baax na ci astuce yoo xamante ni soo bëggee lu gaaw da ko war a da ko war a maîtriser donc nag ñu daal di yëngal mélanger toujours yëngal bi da ciy am solo donc pat yaa ngoog ñor na Euh, moom 10 minutes nga am cuisson al dente bu bu neex sax boo xamante ne deuxième cuisson bi day ñëw mais lépp dañ koy xoolandoo bu ko defee nag ñu daal di assaisonné def benn kuddu xorom tey defuma bouillon xorom kase laa def def naa xorom tarkalla def naa herbe de de province nga xamante ne dafa neex ci ci sauce tomate euh, donc moom it def naa ko ci et puis ñëw ci sama paprika bi nga xamante ne vidéo bi bële paase waxoon naa leen ko la mu saf ëpp na boo ko ci defee dafay mel ni dafa am benn goût barbecue buñ ci def lii bu may ñëw dama ciy àndaale waaw wala bu ngeen ci bëggee sax jàll jàllale ko ci commentaire bi ma xam nan laa leen koy yóndee donc poobar bu mokk tamit moom du ci ñàkk benn yoon et ñu yëngal donc gis nga couleur bi muy andi waa jéeg ji nag bëgg naa bu ngeen defaree seen ay soos di ko photo di ko dugal ci commentaire yi ma xool nag yéen it nan ngeen di defaree parce que loolu tamit am na solo couleur bi daf ciy joué nga def say fem tar kàlla daal di yëngal xaw a fecc tuuti ñëwaat ci suite bi daal di bàyyi nag mu mijote donc moment bi ñu bàyyi pat bi euh, ñu bàyyi soos bi et puis ñëw ci purée de tomate bi donc purée de yi mooy euh, poowu tomate yi nga xamante ni euh, dafa am ci commerce bi foo dem di ko fa am donc moom la ñu jël benn benn pot daal ko ciy sotti moo gën a du tomate loqati bi parce que tomate loqati bi dafa saf te bii moom couleur bi moo gën a moo gën a du daal donc moom it dañ ciy def benn pot wàññi nag gaz bi moment bi bàyyi ko mu mijoter di temtemi genre xeetu soos yooyu nga xamante ni euh, bu ma leen di wax ni bi ma ko tegee ak léegi matul 15 minutes defe naa di ngeen ma war a mën a gëm su ngeen ko reprendre bokk na ci ay soos yu gaaw yoo xamante ni euh, lépp soxlawul temps bu bëri ton bi ñëw ñu am sunu apport en oméga 3 waaw daf ciy baax ñu wàññi ndawal bi wàññi ginaar gi ñëw indi ñoom ton nag ak ñoom jën ñun sénégalais yi fonk nañ ko loolu donc bii benn brique la buy def ñetti potu yu ndaw donc moom laa ci def mais su fekkee ton bi moom c'est seen goût su fekkee bëgg ngeen ton bu bëri ngeen def ci ton émietté la daal su fekkee bëgguleen leen ton bu bëri ñu wàññi ton mais daal man def naa ñetti pot yoo xamante ne euh, ay ay potu ton yu yu ndaw la donc bu ko defee nag moment bi nga xamante ne presque lépp ñor na euh, dañuy yëngal ndànk di brasé de gauche à droite bañ a brutaliser sauce bi daal xam nga jigéen moom day duus jonga may tarkalla ñoom xam nga ni douceur moom kenn du ko jàngal sénégalaise donc nga yëngal ndànk ton bi jaxasoo ak sauce tomate bi goût bi tem-temi épices yaa ngi xeeñ mënuma la wax lu sama waañ bi di xeeñ booleeg sama musique baa ngi fële di gos mais du ko mën a dégg lépp rek ci bonne humeur parce que booy togg ak xol bu rafet sooy togg ak bonne humeur loo yàkk dafay neex togg daal amul stress bëgguma nit ñi di togg di mer wala di togg di wuy téléphone téléphone bi fële ko koy teg teg sa musique bu bu tous concentré wu ci li ngay togg ndax sama yaay daan na ko wax boo bàyyee togg bi dem di wuy téléphone wala nga bàyyi togg bi dem ci beneen boor bi boo ñëwee da ngay da ngay yàq lu xam wala boo yàqee du neex donc mi nga couleur baa ngoog diw bi génn na et puis moment bii nag li ciy des mooy ñu rectifier assaisonnement bi man li may def pour am goût bu neex mooy dama ciy sànni tuuti suukar couper acidité bi nga xamante ni moom la tomate bi di andi et puis jël tuuti crème fraîche euh, daal di koy sànni nag ci sauce bi xam naa dina leen xaw a jaaxal mais c'est au choix man j'aime bien su may defar pâte au thon wala ci def tuuti crème fraîche mais bu fekkee neexu la mën nga ko ci bañ a def. donc c'est c'est bon moment bii nag ñu ñëw euh, sànni ci sunu pâte yi nga xam ne moom la ñu baxaloon daal di yëngal toujours avec délicatesse comme ni ko jigéen ñi di defee. Euh, daal di ñëw nag jàll ci yàq bi nga xamante ni euh, jël nañu ñaari façon fromage euh, moom laa la wax parmesan ak gruyère râpé nga xamante ne ñoom it dañuy indi guugu neex ci genre recette yu mel nii donc bokk na ci ay recettes yoo xamante ni soxla gain de temps bi soxlawul temps bu bëri limite 30 en 30 minutes mën nga defar pâte bu mel nii te soo gisee paquet pâte bu mel nii bu 500 grammes bi nga xam ne moom laa am six personnes mën nañ ci lekk donc euh, nekk na ñam yoo xamante ni c'est consistant parce que ku ne pat xam ne daf lay téye moo moo catégorie yëpp ñoo yam ñoom dañuy bokk nañ ci aliments yoo xamante ni dañ lay téye donc mi ngoog ñu def ci moitié paquet bi beneen moitié bi mën nga ko denc wala nga nga nga nga def ko reer wala nga def ko añ wala nga denc ko ba lendemain euh, nga toggaat même pat bi et puis nga yëngal euh, délicatement ba nga xamante ni pat bi imbibé wu na ak sauce bi yépp bu ko defee nag nga fay sa gaz daa di tàmbale yàq mais nag du ma sama recette bi sans pour autant euh, remercier sama réalisateur bi nga xamante ni du dul du kudul sama latino bi nga xamante ni moom lu ma neex neex na ko man daal ku ma bëgg na ma ñaanal yàlla bàyyi ma ak sama sama sama waa ji daal sama Ricardo Félix mi nga xamante ni lu ma neex rek mi ngi ci donc image yi ngeen di gis yëpp moom moo koy réalisé RFN Alpha bi ngeen di gis mooy Ricardo Félix donc moom sama monteur sama réalisateur donc moom laay euh, dédicacé euh, recette bi nga xamante ni euh, moom la ñu defar tey et puis yàkkal ko sama grande sœur Penda Ba ni ci anniversaire bi moom moom moom mois de janvier et puis tamit sama gars yi bëgg naa su ngeen bëggee seen ay dédicace seen ay euh, anniversaire ngeen dugal ko ci commentaire yi ma mën ko liir bu ko defee prochaine recette bi rek ma mën ko jàllale ndax nee naa leen yéen laa am yéen a tax euh, page Alphie Cuisine bi ñu créer ko Euh, pour ñuy am sunu ay neex-neex am sunu ay moment de délire bëgg naa saa yu gars yi yeewoo xoolu lu Alphie dugal ay déliru Alphie ñu koy defandoo en bonne humeur et puis ngeen di mën a am euh, li leen neex donc mi ngoog fromage baa nga noonu di ci dem tarkal fromage ba mu saf waaw. Euh, ku nekk ak noo ko bëggee et puis ñam bi tamit dina ci am dina ci am solo de parce que boo toggee ba pare itam da nga war a xool ndax xorom bi ñëw na poobar bi baa saful baa saful kaani wala est-ce que pâte ñor na à souhait du fond du cœur encore une fois euh, abonnement yi bëri na macha allah et puis euh, n'oubliez pas su fekkee euh, abonné wu leen bu leen fàtte bés toujours ci sama partie bu rouge boobu ñu bind s'abonner mais su fekkee abonné wu ngeen ba pare bu leen ci bësaat. mi ngoog loolu itam euh, il faut que gars yi di ko fàttali et di leen jaajëfal euh, vous donne rendez-vous je vous donne rendez-vous très très prochainement pour beneen recette boo xamante ni ci catégorie cuisine rapide wala dessert gars yaa ngi koy laajte euh, Alphie Cuisine dina ci ñëw bu baax a baax du ma fàtte xale yi du ma fàtte recette xale yi du ma fàtte recette u ñi di régime ak ñi bëgg ventre plat ñi bëgg jeex ñoom ñëpp dinañ ci ñëw incha allahu rabbin donc jaajëfal naa leen merci beaucoup et à